sol ay yére mu am desin nit boo ko julliwaale julli ga baaxul ku am ay yére mu am dessin nit par exemple may doon ma doon julli tey t bi ma sol ne fàng ci biti mu am Sadio Mané su ma jullee julli gi baaxul wala sama yére bii mu amoon tey ay dessin am xar nekk ci wala aw bëy wala nangam ma nekk ci baaxul sa jaada yi ñuy jullee gépp sa jaada goo xam ne dañ caa def jëmm ju am ruux ak kiwal am xar aw fas nag bëy yooyu daa xaraama jullee wépp ku ci saal dañ koy tere waaw salaamaaleykum wa Muntaxa wala leen di ziyaara waaw oustaz xam naa lim andi da ko andi ngir ci cadre waaraate rek laa yaakaar maanaam ci cadre waaraate ak xuppaate wa illa ko ne xam na ne bokku ci yaq julli yi mu wax euh, julli mom bo matale charte yi ta ko la ko sante nga ne dara tour rek day japp ne julli ga werna na euh, ta charte yi moy sutural awram ci bude ci walu lu jëm ci walu yére bu sutural awram lim sol tamit nek lo xamne lu jot la bude fatna euh, te eh, tëful ci boppam ak yu mel noonu mooy sart yi ñu baaxoo jàngale rek kon daal yii bu ko matalee am ak laab ak yaa ñu xamul ci wàllu julli rek julli ko moom wér na waaye nag ne bu fekkee mbubb moom sol dañ caa ak nit rek julli ga baaxut loolu damaa defee ne oustaz Alioune Sall da ko wax ci kaadaru eh, xëy na xupp ak waaraate wa illaa mu day ci sharia ak ci atte julli yeeg yu ci aju moom loolu day mel ne du nekk wax ju dëgër waaye jàpp naa cadre waaraate daal la ko la ci bëgg a jublu waxam ju mujj ji sax araam na la wax moom waxam ju mujj ji moom waxtu waxatul ci wàllu julli ga baax na wala baaxul waaye dana rek sol ko araam na loolu nag masala moo xam ne masala mu xaw a yaatu la borom xam-xam am ci ay wax ci wàllu li ñuy tuddee dessin li ñuy tuddee photo ah, am na ñoo xam ne dañ ne bu fekkee dañ koo yet mu taxaw am jëm jëmm mën a am ker nga ne mën na am ker boo ko tegoon mu mën a am ker te lol nek hmm, lu am amru pitax la wala xaj la wala bëy la wala nit la subaa ñu ne loolu dong moo aram xadis bay wax fofu la wax hadith bi nag waxu ci wàllu julli gu bax ci walu aram ak dagar rek la doon wax eh, nga xane kon ñom loolu rek li nga xane lol bu fekke ne ak nit la ci ay wala desee ko tabax ñom dañ nan lol aramut amna nak ñoo xam moom dañoo taral lool ba wax ne moom amna ñu ci jëmmi photo yi ñu photo sax nak amna ñu ci taral ba ag ci na da dafa arab ndax dal day dugg ca day dugg ca cadre hadith ba kon loolu mom benen débat la amaa julli gi werna wala wérut julli gi mom li tax mu wir ak mu ñak wér loolu day aju ci walu sarti julli gi ak niñ koy defé gi mel non way nit ki nak sol ay ñu ci dara wala foto nek ci wala nangam loolu amul wérante ne loolu amul bokk ci yaq julli wa japp nan oustaz ñekul ne xeyna na sax xamna na way dama japp ne day waraté ak euh, mom dafa am méthode méthode waraté dal xeyna bëgguñu bàyyi ko ak yu mel noonu ah, tabarkàlla ndax maa ngi dégg beneen waxtaan muy wax naan jigéen defe naa benn tafsir Quran la sax mu naan jigéen buy julli lépp lu feeñ ci aw yaramam lu bokkut ta xar kanamam ak ay cati loxom rek mu ne julli ga baaxut julli ga baaxut da ko na xam na ne eh, jigéen am na yeneen yu mën a feeñ yoo xam du tey julli ga baax waaye xëy na waaraate ak mubaalaxa kan. ak jotal ak kuppaate eh. xëy na ngir lor damaa jàpp ne loolu la ci jublu والله تعالى اعلم الصواب يلا يغلق في موم استاذ سليم صالح تي ليغي يو ام سوليي